dikkati naa coppet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax yàgg naa ko wax Walf Quotidien naan man lii la Ousmane Sonko def Tribune yéen kaay naan ko déet moom Ousmane Sonko kay nangu na dogal daal di jël Bassirou Diomaye Faye nag daal dina copp ci kanam ne ko doxalal yow Bassirou Diomaye Faye doonal sama candidat yéen kaay bi dee média bi naan man gannaaw bi nga xam ne sa dayaawoo gàntal nañ ko autoatekaay bi gën a kawe fii ci Ndakaaru daal di koy gàntal moom Ousmane Sonko nag daal dinay jiital Bassirou Diomaye Faye 24 heures yéen kaay naan koon moom Bassirou Diomaye Faye la ñu jiital wala it lëndëmal la en tout cas Birame Souleye Guy Marius Sagna Abbas Fall ak Malick Ndiaye ñu jëloon fiche nee ñu nag waxtaan nañ seen biir daal di ciy déggoo Ousmane Sonko la ñu dogal moom moo di léegi Bassirou Diomaye fay mooy seen candidat Vox Populi naan maan ni ki tey ci altine gi la ñuy tàmbali nag raasaatu parrainage yi tribune yéene kaay naan kon coow la kay moom moo di Bassirou ci boppam mi ngi ci loxol yoon source a naan kon te daanaka li ñuy toppee Ousmane Sonko lépp ñu ngi koy toppee Bassirou Diomaye fay juróom-ñaar ci loo xam ne ñu ngi koy toppee Ousmane Sonko moom Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko koy toppee waaye nag dafa fekk la nga xam ne mooy outrage à magistrat waaye waaye tam yu yuñ koy toppee maître Ousseynou Gaye en tout cas lu coow li bari bari moom Bassirou day bu nu tàmbalee atteem ci réew mi fii ak élection présidentielle yi di jeex ma ni la recours yi du jeex te tant que condamné wuñ ko définitivement mënuñu ko teree doon candidat ci réew mi waxtu woo 24 heures yéen kaay di ma xamal ne moom gëm sa bopp day ma ngay doxal ci réew mi moom mi daal di soobu yàgg na ci parrainage tribune yéen kaay naan ko déet ab machine de guerre kay la coalition gëm sa bopp daal di teg ngir fas yéene nag ñaabar ñaabari wuti ci parrainage ba l'évidence yéen kaay naan kon ci ruq si wala it ci terrain bi jàpp leen ni coalition gëm sa bopp daal biir parrainage ba te lu toll ci ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom ñeenti junni ci parrain toftal juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk daar daar daal di leen koy def ci seenu gafa turbine yéene kaay naan kon ñoo yey ndax ñaari junneeg juróom ñaari téeméer ci facilitateur lañ daal di tasaare ci réew mi daanaka commune bu nekk ci réewum Sénégal am na fa wala ay ñu fas yéene ñaabar ñaabar ak seeni nit daal di soobu ci askan wi daal di teg lu ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci ñaar fukk ci L200 ñaar fukk ci ay L200 double cabine ngay original naan dara laa ni la coalition Bougane Gueye Dany bi bàyyi ko ginnaaw ngir nag mën a collecter parrainage bi te xam nga ne nag moyen yii boo ko defee ci parenage lii leer la na ni présidentielle bi moom bu ñëwee da ngay daal di xattar bi ba biir weex daal di teg ci suuf moo taxit daanaka juróomi téeméeri junni ci parrainage mani la moom coalition bi daal dina koy matal daar daar fas ko yéene teg ci taabal yi war a ñaabar ñaabari nag uteeg moom présidentielle yi la xale ya lay jeex na turbine yéene kaay naan man ren jii ren jii day jeex na ci coalition gëm sa bopp Dakar Times daal dina mataax Cissé coow li moom moo di nag lan nag la fas yéenal njiital Senelec bu yees bi yéen kaay bi naan man ba ñu ko dàqee ak tey ñi ngi njortu ne mi ngi jël ay xeer di jor ci ginnaaw directeur bu yees bi te lii dafa gën a firnde gannaaw bi nga xam ne waa sudeteen di syndicat Senelec bi daal dina leen di dalal ci pale bi ca waxtu woowu ca ngoon ñu def conférence de presse ba mu leen di dalal ngir xool doxalinu Senelec woowul directeur général ba waaye tam woowul Antoine Diome mi nga xam ne mooy ministre de l'énergie la moom moo nag lan la Makhtar Cissé mii naral Senelec critique yéeni kaay naan mandal na président Macky Sall naral askan wi Sall ma ni la lu ko waay ñaan ci coowal Ousmane Sonko lii lankal na la ko képp ku bëgg def médiation président Macky Sall nee na la demal nga toog la ma bëgg ci réew mi moom faw mu am tribune yéeni kaay naan man président Macky Sall daf caa boole kay du xupp ñeenti weer dese ko ci nguur gi moom Sall ngaari lam tooro buur gede ma ngay xupp gaa yi di leen wax ne du ma maye dara président Macky Sall ci tribune yéeni kaay naan lay bari rek waaye dara laa la duma ko maye jàmm rek moo fi am l'observateur naan maan moom Sall waxee na dënn de te la ñu xalaat ne moo tax président Macky Sall mii waxee dënn moom moo di nag wor gi nga xam ne am na ci biir parteem rawatina ñi nga xam ne ay jege ñaaleem lañ moom président Macky sàll mu ne leen jëfe leen gars yi daal di lànk tribune yéene naan maan waxtu woowu nguuru Sénégal day budget bi daal dina yokku daana ko juróomi téeméer juróom-ñeen fukk ak ñaar ci milliards le soleil yéene kaay naan maan budget 2024 bi def nañ kéemtalaay kàttan ba li nga xam ne mooy bori war mën a wàññeeku ci réew mi niki démb turbine yéen kaay naan maa nattal nan ga fa ministère de la santé ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards ñu daal di koy nattal Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu war a soobu nag ci yenn ci plan d'action war a financer santé waaye tam ay saytu ci wàllu santé gi ay bourse de spécialisation ñu war ko ci amal war a saytuwaat garab yi ministère de la santé xam leen ni lañ leen jegleeloon ci budget bi ñu génn daanaka juróom benn fukk ak ñaar ci téeméer boo jël matale nañ ko laas yéen kaay naan maan waaye Marie Khemesse Ngom Ndiaye ngay xupp de nee na lu ëpp juróom ñeen fukki école de santé am na ci réew mi te boo leen wàññee ci lim googee lu ëpp ñeen fukk ci l'école yooyee amuñu këyit te waruñoo sax jàngale ab wér-gu-yaram ci réewum Sénégal laas naan maan boobu Aminata ture mi mee ngay xupp di xam leen ni nanu saytuwaat parrainage bi ci réew mi ndax loo ci manti déggit machine bi ay nit a ko defar te informaticiens yi xam nañ ne machine mën nga koo xoolloo fa muy xool mu jëfee la nga bëgg kon nag coow li coow li mooy nañu xoolaat parrainage yi saytu ko mi mee nga naan kon yi ci boppam ñoo bëggub coppite te bu ñu seetaanee président Macky Sall ak doxalinam day coppite du am ci réew mi picc responsable ci da caaroy kaw ci libération yéene kaay naan ko déet ku saytu nag président Macky Sall na mu waree def ko Kaolack ak def ko Fatick xool ay réalisation Sall ngaar yi xam ne dëgg-dëgg lii doxal Sénégal président Macky Sall ci la teg tànk te li am ci ñetti gox yooyee mënees na ko lamb daj ko ci réewum Sénégal maral naan loo ci manti déggit sénégalais yi dañoo war a wër coppiteeg Amadou Ba Mimi Touré ci laas yéene kaay naan ko déet Amadou moom ay waxam dañ koo sax waxul ndax bu dee deuxième tour day am ci élection présidentielle moom du ca bokk ci Amadou ci boppam moo la gën a xam ne élection présidentielle yi ñàkk na ko ba nuppi fayal laaxu tribune sport naan maan ak lu mën a am bu leen fàtte ni Sadio maane day niki week-end bii daal dinay amal téeméeri sélection ak équipe nationale ba football sunu lamb naan kon lak yi daal dinay am ndam ci kaw Siteu te ci avertissement yi la jaaree daal di am ndam moom Siteu daal di bëri ak lak dëy lu toll ci ñaar fukki ci simili réew mi sport naan kon ci décision arbitrale la ñu mujjee jël ndam. dina ko doon laaj ak sina eau minérale saalix ndox la mu neex te rax ci dolli sell na te woyof toll ak bouteillam bu weex bii am classe néexatee boole ca présentable booy berndeel nga am ay gan baa ngay def sport moo ca wóor ndax ferñeent yamu am eau minérale saalix am na qualité ak quantité bouteille bu 1 litre cent am na 19 litre bu fontaine am na te li ci gën a neex mooy fu ay morom di leen jox 300 millilitres moom mu jox leen fa 400 millilitres fu leen ay moroomam di jox 10 litres mu jox leen fa 12 litres xanaa du saaleex moo wóor kon saalix eau minéral la bu njëkk bu bawoo ci Touba ci ndigalu Serigne Saalixu Mbàkke boroom jamono moo tax mën ngeen ko am fépp ci réew mi wala ngeen dem ci sunu ay makkaan ñu ngi nekk ci Touba Dakar Thiès ak jurbel ba sax ngeen woo ñu ci 78 151 05 05 wala 77 136 91 91 eau minéral saalix